programme bu am solo bu mairie bu tubaab bi taxawal ngir leeralaat dëkk bu sell bi ay lampadaire yi ñuy monte ci gox yi fasantikoo yu nekk ci dëkk bu sell bi di Touba ngir tàqale askan wi ak jafe-jafe nga xam ne yàgg na ak ñoom mu jëm ci jafe ñàkku kaaraange ak lëndëm ay koppar yu bari yu ñu ci dugal ngir tàqale loon ak ñoom Abdou Lahad di kenn ci ndaw yi nekkee ci mairie bi dénk ko itam lu jëm ci wàllu ko saytug liggéey bi dikkaat ci pàcc bu njëkk beeg ni mu demee ak ñi ñu ko jagleel. karnaa bu yàgg ba nëgg ñi ngi ànd ak équipe bi defe naa bi ñu gënee euh, bi ñu gënee engagé euh, liggéey bi mu mel ne fépp fu ñu jaarit noonu noonu lay demee ndax waa dëkk bi yëg nañ ni kat monsieur le maire yëg na leen waaye surtout nag ci làmpi yi làmp nga xam si ne bu leerul sécurité du mën a am bu leerul lu bari day mën accident day yomb parce que làmp ak yoon ak ndox mooy ak dund ñu gis ne nag li muy def ci làmp yi macha allah mu yàlla dogal nag mu dénkuñu ko euh, équipe bi ci àndal it muy équipe boo xam si ne équipe bu qualifié lañ ndax jëluñu rek jëluñu rek ay nit dañoo xool ñu qualifié ñoo xam si ne dañoo am seen i nga xam ne courant lu ci mën di xew ñoom xam nañ ko fu ñu taxawee ci blanc man nañ laa wax ni lii moo ci lii moo ci sikk. waaw première partie bi jëloon nañ rond-point Thiamène ba euh, héliport euh, jël héliport ba euh, Touba Oual jël nañ héliport ba rond-point bu jël nañ rond-point bu Mbacké ba poste contrôle jël nañ poste contrôle ba grande mosquée jël nañ grande jël nañ kër si li wër kër si Abdou Lahad jël nañ biir marché ocas jël nañ jël nañ jumaa ji ba Daaru Xudóos jël nañ Daaru Xudóos ba ba ba garage Daaru yooyu mooy yi nga xam si ne gën nañ cee taxaw nañ ci ba loolu moom féet na bor. di ko wéyal ñaareelu pàcc bi jamono ji nag dooraat nañu ko. am na ay quartier yu bari yu nekk ci Touba. leeral nañu ko nañ. yaa fan yii yëpp nag yaa xam ne une semaine parce que man na ko ñu nga ci ñu ngi ci bu gerte bi. deuxième partie bi defe naa ne sax dana jege cinq cent quarante cinq yooyu parce que yaakaar naa li ñu yor ci lamp ak ak omors ëpp na lool parce que monsieur le maire génn na bagage yëpp teg saa suñu xëyee dañuy xool route euh, bi ñu jël ñaata lañ fi soxla ñaata lañ war a yóbbu ñu dem jël ko suñ monté bu jeexee ñu dem ji jëliwaat waaye à peu près daal li ma xalaat mooy maanaam li des moom moo war a ëpp li am si ne def nañ ko ndax bu route beleel bi jeexee ak bu gerte bi euh, ak bu bu asalem bi yaakaar naa am na feneen feneen fu ñu war a dem ndax dëkk bi fépp foom si ne lamp yi mi ngi fi rek incha allah ba ba ñun bala ñoo toog lamp yi dana leer. maire bu Touba ànd ci nag ak ay liggéeykat yu xarañ ngir lu jëm ci defaraat yooyee leeg làmp ak liggéey bi gën a mucc ay. biñ tàmbalee route de Guédé ñëw nañ ba ci corniche bi ñu génn corniche bi ñëw jël route Hizbut-Tarqiyyah tey fi lañ nekk nii. ñuy def entretien éclairage public bi. waaw trop ndax euh, boo seetloo am am na ay ampoule 400 am na côté ampoule 400 moo ci nekk am na yoo xam ne ampoule 250 moo ci nekk. am na xamul cent 150 ñoo ci nekk waaye yooyu yëpp dañ ko accompagner ak ay trasfo cuivre yu xam ne mooy waral leeraay bi day mel ni mu war a mel te it ampoule bi du gaaw a am du gaaw a am am problème moom matériel yooyu yëpp wax dëgg yàlla yu am solo yu baax moom lañ ci moom lañ fi fekk ba daanaka yi eh, trasfo yi nga xam ne bii ne moo ci nekkoon bu ci bu ci lakk rek dañ ciy def trasfo bu xam ne bii ne dana mën a sécuriser ampul bi dana mën a sécuriser amox bi ba lampe bi dootu am benn problème moo tax daanaka boo ci gis rek day leer leeraay bu xam sax da lay euh, boo xamul sax da lay xaw a jaaxal la waaw waaw waaw. corniche Guédé route Belel Aslem askan wi la day mbégteeg bànneex la ñu am lool ci lamp yi nga xam ne mairie bu tubaab yi taalal na leen ko tàqali leen ak ñàkku karange fësal seen mbégte ci liggéey bi leen. sëñ Touba yàlla na leen fay ndax lu mat juróomi at ngi lamp yi takkuñu bu màggal dikkee a doon ndax suñu xale yi waaw ñu ngi bég bu baax di sant. waaw lii moom wax dëgg yàlla kontaan nañ ci trop moom lii lu ñu yàgg bëgg la waa tey su ñëwee def ko suñu xol sedd na ci lool wax dëgg yàlla kontaan nañ ci lu am yëgeeg laat loolu moo taxoon ñu sonn ci ndax booy xool place yi nga gis fii yëpp ay jeunes comme ñun ñoo ko moom dajale seeni fukk seeni juróom te créé ko mais fu nekk ci lëndëm rek nekkul ci sécurité daanaka loo fi def bu guddee ñu dajji ko jël ko tey bu ñu ba dëkk bi fii leeraat nii leer na suñu matériel ak suñu alal lépp mi ngi ci kaaraange. moo tax ñu kontaan ci trop suñu xool seet na dëgg yàlla jàpp nañ ci bu baax ndax ñu demoon ba découragé wu ci yàlla xam na ko tey fan yi bi ma woone ma daan defar la daan defar si lamp yi duñ cee kontaan trop dañ cee kontaan lool dëgg yàlla macha allah waaw taxawaayam am na solo trop nag wax dëgg yàlla lii rek lii la lii rek lañu ñu desee loon lamp rek la ñu desal mu nekk nag càkkutéef goo xam ne yàgg nañu ko sàkku ñu ne nag jamono ji ci loxob monsieur le maire bu Touba ci la jaare loolee ant li feek programme bi di wéyandi ngir leeral yeneen i gox yu nekk ci dëkk bu seel bii di Touba ak artu tamit ñi ngi koy yëkkati jëmale ko ci askan wi rawatina ñi nga xam ne dañuy yàq lamp yi ay jafe-jafe yoo xam ne dañu ko ciy jànkonteel tam mën a dikk lu seer lool bokk moomeel gi ndax bu ngeen seetloo ci yoon wi rek am nañ fi juróomi coupure xam ne yëpp ay câble yu dagg la ci ñi nga xam ne ñooy euh, def euh, assainissement bi ak ñi nga xam ne bii ne def foos si kër yi maanaam fu ñu traversé rek maanaam lu ci gën a bari seen pukkale yi dañuy dagg kaabul yi loolu it vraiment ñu ci ñu ci intervenir di ci wax toujours ñu di ko moytu ndax euh, éclairage public dafa am importance ci dundu doomu aadama. naka lampe solaire yi pare monte bi pareegul sax ñu commencé ko di ko di ko di ko di ko mbëkk. te loolu moom daanaka. day yàq liggéey bi daal nañ moytu di mbëkk làmp yi daal. kon nag ñu bàyyi loo xel di dëkk ku ca nekk xëy na njuumte mënta am ndax yàq boo ko defee da ngay signaler xam ni kat lii dafa yàqu mais yàq bàyyi ko noonu eh, yóbbee askan wi lu rëy rëy ndax lëndëm day wàññi sécurité képp koo xam si ne mi ngi gas ñu xalaat ne dana dagg kaabal nañ ko signalé ñu mën a ñëw taxawu ko ba du dagg kaabal gi wala bu daggee kaabal gi ñu xool nan lañ ko mën a defaree irsan ba lëndëm lëndëm moom day jeex Touba tàkk. bi lekk liggéey nag bokk ci liggéey nga xam ni asken wi itam rafetlu nañu ko lool leeraange gi ràññee ko lool asken wi nag am ci mbégte lool mu nekk nag programme bu am solo boo xam ne mairie bu Touba mu koy wéyandil ngir gën a leeral dëkk bu sell bii di Touba